asalaamaaleykum mbokk yi tey la àllarba fukki fan ak juróom-ñett ci rabiul awal muy weeru gàmm di ñetteelu weer ci atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak juróom ci gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dëppoo ñeenti fan ci weeru octobre ci atum ñaari junni ak ñaar fukk ñett fukki fan ak juróom-ñett bokkul ci lim yu yi lim bu rafet la kon tey ca àllarba ji rafet na li ñu ci gën a taamu mooy ku ca daloo li ñu ciy tere tere wàccandiku moom àllarba mooy ku ca watu wala ku ca tàggoo wala ku ca sangu wala ku ca fóot ñaanu bis bi yow yàlla yàlla na nga bëril sama alal yàlla na nga bëril sama njaboot yàlla na ma barkeelal li nga may jox allahuma aksir maali wa waladi wa baarik lii fii ma aataytani allahuma aksir maali wa lii fii ma bis bi yonente bi salallahu alayhi wa sallam nee na amul aw nit ñoo xam ne dañuy def ak mooy yàlla ci seen biir te ñu am kàttanu dindi ko te dindiwuñu ko lu dul ne sunu boroom dina wàccee am mbugalam ci seen kaw xadis bi abu daawud génnee na ko qaala rasulullahi salallahu alayhi wa sallam maa min qawmin yucmalu fihim bilmacaasi summa yuqdiruuna ala an yuxayiruu an yacumuhum allahu minhu bi iqaab axrajahu abu daawud waxtu julli yi suba waxtaan dana tàbbi 5h42 juróomi waxtu yu tegal ñeent fukki simili ak ñaar